xol sedd na sama xel dal na ndax boo wootee ñu wuy si la war nga sant boroom bi te ku nekk xam na ne woote bii ñu woote yàggul defuñ ci xaalis defuñu tournée préparation menacé wuñu chantage ñu dañu woote ngir yàlla moo tax yéen ñi wuyu si ngir yàlla ñu leen di sant. Oh, téléphone bi ma tàmbali nag sama kàddu fii si géejawaay te suma xel ak suma xol demul ci sama doomu ndey la Diop. muy xarit. di àndandoo di ku baax di ku am jom di ku am njariñ ku mel noonu ma yàgg ànd ak moom ci liggéeyu politique bu nekkee tey ci xat-xat danaa ko xalaat di ngeen ko xalaat ñu ñaan borom bi mu génn lu teel delo si kërëm parce que place am ci kërëm la nek place am ci sunu wet la nek bu lolou weesoo may balu ak ndax comme dañu nek ci lu bees amuñu ay responsable yo xamanteni dañ leen tan parole bi dañ ko mëna a joxe rek ci yaakar ne ñi wax mën nañu wax ci turu ñeneen loolu moo waral am na ñu bëri ñu mu bindoon ci kayit bi waaye waxtu wi xam ngeen ne léegi ñu noddu timis du ñu mun a continuer kon maa ngi balu ak ci ñëpp ñi nga xamante ni bëggoon nañ ma woon seen cofeel jël fi kàddu feddali seen kóllëre te munul nekk. léegi nag ma jàkkaarloog presse bi li tax ma war a jàkkaarloog presse bi mooy. dëgg la yéen a fi teew yéen lay waxtaanal waaye nag presse bi daf ñuy may ñu waxtaan ak waa Géejawaay yépp waaye waxtaan ak waa Sénégal euh, gannaaw waa Golf Sud bi nga xamante ni bi ma tàmbalee woowoon naa leen lii mooy premier ndaje bu ma wootee ci Géejawaay pour wax leen sama maire maire Fall bu wàkk naan maa ngi lay nuyu mère ngi woote tey nag pour wax leen officiellement maa ngi ci maa ngi ñëw waa géwél yi namoon leen maa ngi leen

mois de mars 2024 ñu jël réew mi am ci loxo yuñ ko teg waaye ku naa fekkul xam na ni lii ñu jot a wone ñoom amul yaakaar li ñu jot a wone dalul xel li ñu jot a wone nuroowul ak jàmm li ñu jot a wone amul njëriñ yéen a ko waxal seen bopp Ben carotte 300 francs 350 ah loolu cher Ben yaboy 500 loolu Cherna. na ñun nag Amadou Ba woo ñu ci ak Yerim, balaa nga ne Sénégal dañu soxla jàmm ak salaam Sénégal dañu soxla njëriñ maanaam fexe dund gi yomb fexe jeunes yi amaat espoir toog ci réew mi fexe démocratie bi sax fii waaye fexe nit ñi seq jàmm seen biir loolu moo waral ma taxaw. man ak mboolem responsable yu nouvelle responsabilité ci weti Amadou Ba heure bi démb nag taxawal nañ coalition bu yaatu boo xam ne parti ak organisation politique yu ci nekk toll nañ ci téeméer ak lu ko ëpp sax loolu nag mooy yoon bu bees bi ñu jël ci wàllu politique la ma nekkoon tourné na page bi complètement doonte damay préciser benn adversaire laa am du ñaar suma adversaire c'est le PASTEF c'est le régime en place beneen parti boo mun jël bu dul parti boobu buy APR wala muy beneen parti dama considérer que dama bokk ak ñoom opposition bi ma leen di demander fair play ma leen di demander élégance ma leen di demandé ñu nekk ay gentleman parce que loolu mooy sunu njëriñ waaye ñoom it loolu mooy seen njëriñ di xëccoog man fii ci géejawaay mënu leen a jikk amulu leen njëriñ man xëccoowu ma ak ñoom woowuma kenn ne la bàyyi parti ba nga nekk ñëwal ci man dama ne awma droit nekk ci yoonu politique bu bees te woowuma ñi nga xam dama seqoon na ñoom kóllëre jàmm ak salaam depuis démb ne mangi ngi ci yoon bu bes bi kep ko xamne ne bëgg nga ma sey fekk ci maa ngi lay tijjil samay loxo kep ko xamne yaakar nga ne fa nga nek mo la gënal bu yebo nga tok fa du wañi dara sama ak yow aw ma yéene ñagasal sama ak yow kon nak conseil bi ma leen di jox moy nañu dal nañu am fair play nañu élégant nañu nekk ay gentleman suñu ko defee mën na am yoon bi dina leer pour ñëpp defe naa loolu mooy njëriñu waa Géejawaay loolu mooy njëriñu waa Sénégal léegi nag lu bees lañ nekk nañu fàtte façon yu démb ya nga xam boo xamee Aliou Sall rek nga yaay jëriñu nañu bàyyi façon yu njëkk ya di def ay clan dañu bàyyi façon yu njëkk ya nga xam responsable bu nekk da ngay am sa groupe whatsapp di saga yeneen responsable yi façon bu bees bi mooy dañuy tijjeeku nekkuñu fi pour créer waat APR bis déedéet fii responsable yéen ñi fi teew yéen ñëpp a tolloo ku ci nekk li nga liggéey boo ko di nga am di nga ko jëriñoo dañu bëgg nag ngeen ubbi buntu yi nu tabax parti bu bees parti bu yaatu dugal ci képp koo xam ne yaa ngi yëngatu politique te bokk ak ñun gis-gis waaye dugal ci képp koo xam ne mosuloo politique waaye xam nga ne Aliou Sall yàgg na taxaw ci njëriñu Guédiawaye te di gis bokk ci. élection législative yi dafa am solo pour réew mi waaye dafa am solo pour Guédiawaye ndax daf ñuy permettre. nous commençons à marcher pour récupérer la ville de guéliouaï sur le moi-même. kon c'est une élection nationale mais c'est aussi une élection locale fan yi di ñëw danaa wax ak mi responsable yu bare wax ak man ñi parewul wax ak man sax danaa dem seen kër waxtaan ak ñoom parce que man ku ma xam-xam ne yoruma kañaan yoruma xaj ak seen yoruma di mere nit di ko garder donc yéen ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo képp koo xam ne Aliou Sall tooñoon na la maa ngi lay balu ak waaye képp ku ma tooñoon xaw nañoo bëri nag waaye yéen ñëpp baal naa leen ci xol bi su ma demee ba baal Ahmed Aïdara xanaa kañ waa APR tamit dana leen baal kon waa APR bu leen tiit yéen ñëpp baal naa leen ak kaa leen rek ñu ànd ci opposition bi ma boot leen danaa leen yërëm danaa leen ñaatalal danaa leen woon yoon bi ndax xam ngeen ne su ma taxawee ci terrain bi aw ma fi bi liggéey dawaa yàllaa ko def loolu du suma mérite yàllaa ko def du ma seen morom ci terrain bi su ma ñemee ci combat bi nag c'est parce que saa yu ñu wootee ñi nga xam ñoo yor politique wuyu si muy jigéen ñi jigéen ñi aw seen fay yi gàcce naa mais maa ngi def appel solennel à la jeunesse de Guédiawaye la jeunesse politique mais la jeunesse indépendante ngeen xam seen njëriñ xam ñi liggéey ràññee leen waxkat yi benn yoon mën naa ko comprendre ñaari yoon ma xam ne xëy na da yoon ci ñàkk bi nañu taxaw am fulla am fayda xam njëriñ xam njëriñu réew mi te tey jii seen njëriñ seen njëriñ njëriñu réew mi mooy ànd ak man ñu dem ci ginnaaw président Amadou Ba ci coalition jàmm ak njëriñ jël majorité de l' assemblée nationale former suñu gouvernement nërmal xale yi nga xam ne ñoo yor réew mi tey te jëmee wuñu ci jàmm maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.